asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi sante borom bi julli ci yenente bu tedd bi sallallahu alayhi wa di nuyu mbokk jullit yépp di leen ñaanal jàmm te di ñaan sunu borom subhaanahu tabaraka wa taala sunuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njéggalam waaye mu mel ni dañuy dellu siwaat ci suñu jataayal yóbbalu ndaw ñi muy jataayal xam-xam jataayal fàttalikonte ñu doon jàngale téere bi ñuy wax jaw jawharun nafis ñu tolloon nag doon jàngale jullik aji feebar ji nan lay jullee ci fànn yëpp fànn yi nga xam mooy julli gi nga xam ni noonu la ko suñu boom subhaanahu tabaaraka wa taala santaane ci ginnaaw bu nit ki feebaree ba amatul kàttanu julli nam daan jullee kon suñu bindu tey lañuy tàmbali ci bunt bi jàngale nan lañuy fayee julli yi nga xam ni daf laa rawoon te nga bëgg koo fay nan lañ koy faree ak la ca aju moo tax mu ne fas lun di ab dog la fukki rek guddeef na fiihi ca moom xadaa u fawaatihi fay faatiya julli yi nga xam ne dalaa faat wama ak la nga xam te ni yataxallaq dana ayu bihi ca moom kon dafay jàngale julli yi nga xam ne daf laa faat nan nga koy fayee ak la ca aju xadaa u maa fay la nga xam te ni fi zimmatin nekk na ci baat minal faraidi ci farata bi fawrin ci lu gaaw xul waxal wujubuhu ak waram yuraa def na ko gis walam yejus daganut tafriitu man sàgganut ka nga xam te ni tarattaba toftaloona ay bor ya alayhi ci moom fiihi ca moom bor mu faat fajtahidu ak farlu wajaba war na kon mu nit ki war fay julli yi nga xamante ni daf koo raw muy julli faataya war naa gaaw fay ko bañ koo yéexe kon daganut ci nit ki mu sàgganee julli yi nga xamante ni daf koo raw ci bañ koo fay kon li war ci moom mooy mu farlu ci fay julli yi nga xamante ni daf koo faat moo tax mu bëgg laa xamal léegi nag kan mooy farlu ak kan moo sàggan mu ne wa kullu man képp koo xam ni sallaa julli na fii kulli yawmin ci bépp bis xam san juróomi julli minal ayyaam ci bis fii mu sallaa ci jullikaay ba fa innahu naka moom laysa minal mufarritiina déet muy bokk ca way sàggane bal kay li fi nekk innahu naka moom yu xaddu def na ko lim yi mujtahidiina bokk ca way farle mu ne kon kat boo bëggee xam ci sàggane julli yooyee ak ki ko sàgganewut mu ne képp koo xamante ni kat mu ngi def bis bu nekk mu julli juróomi julli fay ko ca julli ya ko rawoon nee na kooku kenn du ko limaale ci woy sàggane kooku kat dañ koy lim mu bokk ca woy farlu ya bu dee bis bu nekk fexe na ba fay juróomi julli kon dañ koy boole ci woy farlu ya mu ne tox daa def na fay kama faatat ni mu ko faate fa waxtul xadari waxtu teew ya fa xadarun kon teew lañ koy faye wa diddu safaan wa waxtu safari ak waxtu tukki ya sawa un ñoo yemoo in kaana nem nekk na musaafiran di aji tukki la daa xadaa fa fay ga aw xaadiran wala muy aji teew yabxi kook dana sàkku alhuda mu nekkat julli yi nañ koy fayee mooy julli yi nga xam te ni ba ba koy leb ba koy ba mu lay raw daa fekk nga nekk ci ab tukki nga xam ne danga war na wàññi julli kon boobaa boo koy fay dangay wàññi bu dee nag fekku la woon nga nekk ci ab tukki dangaa nekkoon di matal julli kon bu boobaa it boo koy fay dangay matal kon daal na nga ko lebee woon noonu nga koy fayee kon jamono ja ngay faat julli ga la ñuy xool waaye duñ xool jamono ja koy fayee kon bu dee ci ab tukki la danga nga doon wàññi kon booy fay da ngay wàññi bu dee da doon matal booy fay dangay ngay matal kon na ko faatee woon rek noonu nga koy fayee war a ak ngay toftale wujuban ci lu war yaa basir yow aji gis de bayna haadiriyatayni ci diggante ñaari julli way teew wa yasir fawaidin ak aji néew fay maxallati ànd ak fay julli yi nga xam te ni xada xadar teew na in lam takun nem nekkoo naasiyan di aji fàtte waxtal xadaa i waxtu fayo man ka nga xam ni fatin xelu na mu ne fay gi it booy fay bu dee ñaari julli la yoo xam te ne dañoo bokk waxtu nga xam ne dañoo bokkaale aw waxtu ñoom ñaar booy fay dangay fay ga jiitu doo fay ga ca topp ci misaal da tisbaar ak takkusaan kon booy julli tisbaar ak takkusaan gi da ngay jiital tisbaar teg ci tàkkusaan gi bu dee timis ak gee ci misaal da ngay julli timis gi après teg ci gee kon waroo ko bëttal njëkk a julli ki tisbaar wala njëkk wala nga njëkk a julli gee bu dee da koo fàtte nag ba njëkk a julli tisbaar wala nga njëkk a julli takkusaan ba pare kon julli tisbaar bu boobaa boobaa baax na waaw bu boobaa dina baax waaye li war moom mooy nga njëkk a julli ba jiitu teg ci ba ca topp bu dee ñaari julli yoo xam te ne dañoo bokk waaw wala sax mu ne nga nekk julli yoo xam te ni bariwul moo tax mu ne amma yasiruha ndaal aji yées ya fa arbaxun ñeent salaat julli wa duna wala lu ko gën a yees laa waxuma maa la nga xam te faw xaa nekk na ci seen kaw ñoom ñaar inda sexaat fa way dëggat looy wa ma yekkul ku nekk alayhi ci moom di war arbaxun ñeent julli xul waxal aw xal la wala lu ko gën a néew yàq sit na jublu xadaaha ci ak fayam walaw xaraja doon te génn na waxtu waxtu wa lillati ñeel ga nga xam ne ni xada xadar teew na kama nekk mu ko xamee fi nas si ci yaxal ga mooy leeral ga zil fiqhi kay aji dégg fiq sabat gog sax na mu ne nag bu dee la mu amee ci ay julli ci bor dafa néew bu nee dafa néew nag mooy loo xam te nii tollu ci juróomi julli nga xam ne ci misaal ñeenti julli la am kon bu boobaa buy fay day jiital waxtu wa jiitu doon tisbaar day jiital tisbaar teg ci takusaan teg ci timis doora julli gee waaye heure nag bu demee ba mat juróomi julli nga xam ne kon néewatut bari na kon ñeenti julli moo néew kon li tàmbalee juróom ba juróom benn jëm juróom benn day bari kon bu fekkee dafa am juróomi julli kon bu boobaa buy fay day fay guddi ga teew ba pare door caa teg ya nga xam te ni daf koo leboon ci misaal bu doon julli suba fekk démb julliwut tisba julliwut suba tisba timis gee kon day julli suba tay yi ba julli bu dee nag ci dafa amee suba tisba takusaan timis wala julli gee boobaa day julli suba tisbaar takkusaan timis doot di ci teg timis waaw ndax loolu lu néew la ñeenti julli waaye heure bu yeggee juróomi julli ci ni mu waxee mooy kon bari na kon néewatu kon day julli day jiitu tekkee ji toog bu dee dafa dafa mat juróomi julli day julli ba teew door a fay yaa ngi xam ne da ko faatal donte sax bi muy julli dane ci tisbaar ji timis ji kat waxtu wi day jàll teewul dafa war a fay tegale ko ba yëg ci tis ba yëg ci timis door a julli timis donte waxtu wi day jeex wa jawazu daganal nañ ci kulli waxtin ci bépp waxtu xadaa fay wa mën a xuutee nañ naflan naafee li man ñeel nga xam te nii xadaa ak fay lu ñeel na ko misla tanafulin duha comme naaf léegi yoor yoor wa ramadan ak weeru koor waaye nag jawatu dagan nañ safahi safa wa witr ak witar banan feeñ mislahuma kem ñoom ñaar alxayidayni ñaari julli xiid yi mooy mën tëbaskeeg korite wala xusuuf ak julli muy weer fajrun ak fajar ñaari rakay fajar listix wala istixaau ak jullig baaw naa wal kusuuf ak jàpp jàppu jant bi mu ne bu dee nag daganal nañ ci julli da xam ne day fay dafa amee bor baru julli di fay waxtu yëpp dagan na ci moom fay moom amul naan heure bii da fay waxtu boobu la fekk rek mën ngaa fay bu dee naafile nag daganut ci ki nga xam te ni dafa amee bari julli muy julli julli naafile waaye nag mu leeral ci ne bu dee julli yoo xam te ni julli naafile yi nga xam ne julli sunna la boobaa mën na koo julli mooy yu mel ni julli yoor yoor mel ni julli yoor yoor ak lu mel ni safa ak ndax wiitar moom mooy naafila gi gën a dëgër wala lu mel ni julli tabaski wala korite wala julli jàpp bu weer walla jàpp jant wala ñaari rakkay fajar wala julli baawu naan mel ni yooyu moom loo amee bor may nañ la nga julli ko waaye bu dul yooyu nag nga war fay bor bor ya ci lu mel ni kon misaal na ko ci tey bu fekkoon dañuy naafile weeru koor yow nga war a naafile weeru koor fekk nga amee ay bor yu julli kon bu ñuy julli di naafile da ngaa war a yéenee fay say bor dem di fay say bor bañ a bokk ci naafile bi fayee ko say bor noonu ngay waaye bu hmm, mën nga koo naafile ak julli gi yoor yoor rek weer yaag jàpp jant baak julli baaw naan yooyu moom mën nga koo naafile ndax liggéey bi nga nee nit ñi bokk ci léegi sunna yi am na luñ ci setal sax luñ ci xóotal daal bu dee julli naafile rek moom amoo droit naafile naafile te fekk nga amee ay bëri julli wa jawasu daga na nañ ijtimaaha ak boole xaadiina way fayya sa sawat ne yamoon a salaatuhum seen julli bi tax yi ni ci ràññee la faxis xiyaasa mu ne nag dagan na ci ñi nga xam te ne dañuy fay julli bu dee ñaari nit lañ wala ñetti nit fekk julli yi ñu lepp ñoo ko bokk ñu mel ne ñoo xëy julli wuñ suba tisbaar takkusaan di fay boobaa mën nañoo ànd kenn jiite ñu fay ko ma yëkun ku nekk na di fàtte xaada dama dimb la nga xam te ni xat wajaba far war na ko minal xadaa i ci fay yaa ajiba yaa aji xel ji fa ko moom yaxdi dana fay yu salli di julli xadada lim lam yubxi ba desut sakka sikki yaxtari dog dana ko gaar abada faw mu na nag fekkee ki nga xam te moom dafa war a fay ay julli waaye nag fàttalikuwut yan ak julli yan julli la war a fay nga xam ne misaal dafa am benn julli bu fàtte woon waaye xamul ne kat démb ban julli la julli wutoon kon boobaa dafa day fay la tàmbalee ci suba sa ba géej boobaa dina ko leer na fay na julli bu dee tamit day tàmbalee fay xamul fan lay tàmbalee fay julli yowoon tàmbalee ci julli tisbaar ga fay di dem continuer bu dee ki ni moom dafa am leer na ko ne moom am na ay julli julli yu bari waaye xamut lim ba nam toll kooku nam koy faye mooy day julli sa jur bu xëyee di julli di julli bam leer ko ne lim julli boobaak léegi daal xelam dal na ci ne lam faatoon lépp fay na ko bu fekkee amul benn sikki sàkk ci xelam ne des dese na julli rek kon boobaa dañ koy nangul ngànt la ca des doonte des na kon day mel ni fay na lépp waaw <coughs> kon day mel ni fay na lépp kon foofu la yamale bunt bi jàngale fay jullit faar yi kon nag li war mooy nit ki bu amee ay bor yu julli mu gaaw fay ko bu dee amul benn ngànt bu jullee fexee julli misaal bu jullee suba fexee julli juróomi suba wala bu jullee tisbaar fexee julli juróomi tisbaar ko defee ba bis bi jeex kon de am na juróomi bis bu dee mënu koo defee noonu donte day xëy fay juróomi julli yëpp baamtu ko ay yoon mu daal ne ma fay na julli yu bari du koy def bu yàggee lam amee woon ci bërëb julli dina mat kon nit ki war naa gaawantu fay ay bëri julleem bu dee amul benn gànt bu dee nag dafa nekk koo xam te ni kat dafa yor ay njaboot ñu yaakaar ko tam wala liggéeyi kon may nañ ko ngànt bu jullee mu gaaw dem liggéeyi day keroog muy am ak féex mu gaaw fay fay julli ba dafa diis lool lool nit ko am rek war ngaa fexe gaaw fay ndax bàkkaar la bu nekk ci am fay kon ñu ñaan ñëpp ci fay seeni julli seeni bor te na mu baree kon ñu ngi ñaan su moom defal ñu jàmm defal ñu dégg ak topp ñu mujj gu rafet déggal ñu suñuy bàkkaar defal ñu tawfeex ñu ñaanal mbokk yi teewlu jotaay yi yëpp borom defal leen yërmande ak njéggalam amal leen ak cant ñaan suñu borom fay leen aw yiw ci barkeb Sëriñ Tuubaa in uriidu illal islaaha mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaahil alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh